mois de janvier bi passé ministre bi euh, partagé na li ñuy wax les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux nga xam ne euh, document la boo xam ne dañ ci tënk naka la ñuy doxalee ci wàllu wàllu ndox loolu tamit lu lu am solo la waaye ginnaaw loolu tamit euh, am na ay programmes yu ñu tënk yoo xam ne ci wàllu sécurité et durabilité de l'eau la tënku fàttali naa léegi la programme intégré de sécurité de l'eau et de et waaye tamit ñu ngi expérimenter yeneen i xeet lu mel ni dessalement xam ne dañuy jël ndox bi nekk ci géej gi dindi xorom bi ci nekk fexe ba askan wi mën koo jëfandikoo euh, loolu yëpp day wane ne nag ñun dañuy gën a euh, euh, jëfandikoo ndox yi nga xam ne moom la ñuy wax eau de surface